Cheikh Abdoulaye Lahad Cheikh Abdoulaye Lahad Cheikh Abdoulaye bokki jullit yi bokki taalibe yi amaan nañ mbégte ci toogaat ci jataay bii nga xam ne jataayub fàttaliku la waaye jataayub sant yàlla la waaye jataayub ñaan la jataay bii nga xam ne moom lañ toogee ci kër jàmbaari lislaam ja di sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké boroom ku dem ma dem ku demul ma dem kane woon li feeg mu fi nekk sëriñ Touba rek la fiy nekkal kookee nag bisam moo dëkk malaat war a doon ajjuma ñeenti fan ci weeru juin dëppoo ak ñaar fukki fan ak ñett ci weeru korite wi di bis ba nga xam ne ba mu xewee ca njaareem sëriñ Touba Xaadim Rasul moo ko njëkk wooteel boppam wax na gana ngi nii xam ne ñëw na jamono képp ku ko lebal teraanga su màggee dana la fay waaye man Seex Ahmadu Bamba boo ëllëgee danaa la fay bis boobee ba mu delsee mbedd njaareem yëpp dañ koo taal di jàng alxuraan di jàng ay xasida di def ay bernde di sant le Serigne Touba yàlla ci ganam gi nga xam ne moom la ko yàlla jox bis boobu nag moo dëkk malaat moo tax ñu toog fii ci jataay bi ci kaw ndigalul sii di Mbacke mi nga xam ne mooy jëwriñu kër Cheikh Abdoul Ahad Mbacke yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér te am ngërëmul koy xeel waaye nag mu jëlee di magam di Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké borom pësteef bi borom yitte ji mu xam ne ne bis boobu nag nañ ko waajal nañ koy waajalee ak nañ koy defee nag loolu mu ngi ci kàddu yi rakkam yi nga xam ne ñoo toog di Serigne Mahmoudan feggoo ak sëriñ Amsatu mu Cheikh Abdoul Ahad ak sëriñ Abdoul Ahad Ka ak sëriñ Abdoul Ahad Diop ak mbooleem ñi nga xam ne ñooy daayira turandoo Cheikh Abdoul Ahad yi ak soppe yi ñu bàyyee kàddu gi sëriñ Mahmoudan mu ubbi jataay bi su noppee sëriñ Amsatu tëj ko su ko defee ñu xamal leen nañuy waajale bis ba ak na sëriñ bi bëgg ñu ñëwee ko ca ak na sëriñ bi bëgg ñu defee ko ni ca murit nag lépp lu mu def ca teg ko ci ndigal dana ca am yiwu yàlla kon ñu maa si déglu sëriñ Mahmoudan asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ci kilifteefu Cheikh Mouhamadul Mountakha ak ci ndigalul Serigne Sidi Mbacké mi xalifatu Cheikh Abdoul Ahad moo waral nu daje fii tey ci ndigalul Serigne Sidi ngir jot li kàddu yi nga xam ni ci bis bii ñuy dëgmal muy bisu Cheikh Abdoul Ahad bi noonu la sëñ bi bëgg ñu doxale ko ni gannaaw bu nu nuyoo ñëpp siyaar leen sëriñ baa ngi nuyu bokk yëpp di fedd li bokk gi ak wëllëri bi di xamal ñëpp ni màggal gi nañ ko defe woon daaw noonu lañ koy defe waa ren sëriñ bi joxe na diggal ni kenn ku nekk barab ba nga nekk nga dundal fa bis bi ci jàng alxuraan ak bernde lépp nag ñu delloo ko ci def ko addiyee Cheikh Abdou Lahad ak bokkam yem fa fekk yépp loolu la ko sëriñ noonu la ko sëriñ bi santaane kenn ku nekk fa nga toog nga màggale ko fa ci Pastef bu dee ab daayira la boo xam ne bii dañ koo sosoon ngir Cheikh Abdou Lahad wala ñu wala ñeneen ñoo xam ne dañoo dajaloon ngir def bisub Cheikh Abdou Lahad bu fekkee dañoo war a ñëw ci kër gi nañ ko defoon daaw rek lay demee dara du soppeeku nañu nañu bañ a indi mbooloo mu bari sàkk ñetti nit wala ñaar ñu dikk indi seen pëstéefub liggéey noonu la ko sëñ bi santaane bëgg ñu defe ko noonu bernde yi yaatu ak jàngum alxuraan yi la sëñ bi wax ne nañ ko ne defee la ca des nag sëñ am sa dana ko gën a détaillé ci ak leeral waaye li sëriñ bi bëgg daal ñu def ko mooy nan de màggale woon daaw rek nan nan ko màggale ren sëriñ baa ngi ñaan nag ci barkeb sëriñ Tuubaa ak Cheikh Abdoul bi nga xam ne moo ko fi nekkal Euh, lépp lépp lu nit yëngoo ci màggalu Cheikh Abdoul Ahad gi wala ci taxawaay wala ci pas-pas yàlla defal li nga bëgg àddina ak àllaaxira kon nag nañ ko defee ni ko sëriñ bi santaane ndax jëf ju mën a doon rek bu tegoo ci ndigal rek lan cee lan sàkku lépp danañ ci ci teg teg suñu loxo te nii la ko sëriñ bi santaane jërë ngeen jëf. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di jiite ci nuyoo bi nag sunu kilifa bopp di Cheikh Mamadou Mountakha. ak sunu kilifa nun ñëpp di kilifa kër gi di sëriñ Sidi Abdul Ahad ñuy wax nag ci turam di yëkkati kàddu yi gàtt rek jëmale ko ci sof ko ci sëñ Mahamad nu waxoon léegi ci bis bi nga xam ni mooy jublu si di bisu Cheikh Abdul Ahad ci bis bi mu gën a àdduna te sëñ Touba jëkkoon koo berndeel joxewoon taalib yëpp ndigal ñu berndeel ko ñu koy taxawal nag ba li xew ci jamono ji tax ñu soppat nañ ko ànd defee waaye bernde yi nag ñoo bëgg a xam ne dara du ci soppi ko njàngum xasitam ñu xam ne dara ci soppi njàngum alxuraan yi ñu xam ne dara ci soppi ko ndax Sëriñ Abdou Lahad dafa def ci alxuraan loo xam ne bëriwul ñu ko def ndax ña ko daan bind leen daan teral te da ko daan jàng fa mu toll ba wutal ko daara kaamil fii muy daara alxuraan kon koy berndeel alxuraan war na caa ji bokk war na caa jiitu xasitam mu liggéey ci loo xam ne doom gisu bëgguma ko ko liggéey ndax moo dajale Sëriñ Tuubaa xasidaam yëpp wutal ko kër fii dajale fa lépp ay junni junni mool ci ay junni junni ndànk alal yu bari def ko ci ngir euh, seexul xadim kon su bisam ñëwee xasida war na caa bare tranga nag moom ci moom la fekk baax ci la yam ndax daa yàkkal yoon sëñ tubaab yi ci tranga ndax islam boo ko jël si ta noppee yàkkali ba ko jël si rek tranga ko yàkkali te moom euh, daana wax ne sax yii muy def mu niroog yàq ngir ñu xeem yoon yi moo tax kon tranga jooju nag bu ñëwee bisam war nañ ca jëf suñ kemtalaay kàttan ñu ñaan nag fépp taalibe bi nekk ci réew mi ak bitim réew loo ci tra fa nga nekk nga def ko fa fii itam nga xam ne këri sa këri sëñ Abdou Lahad yi nga xam dañuy dañ dañ seenu njaboot fay nekk ñu fay berndeel nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy mooy bi mooy sees bi daawa daawaay yëpp ñu dajale seen addiya andil ko sëriñ bi kenn ku ne la nga war def sa kilifa nga nga def sa nga def ko fa waaye nag fa nga nekk itam nga def alxuraan def xasida ndax fii lañ ko wootee ndax woote bu ñuy wootee bu ne Touba ci ëpp solo sëñ bi waxul ñëpp ñëw waaye nag kenn kenn ku ne fa nga ne mën ngaa def teraanga mën ngaa jàng xasida man ngaa ñaan kon ñu koy sant taalib yëpp leen ko fàttali den ci leen ko digal tamit sëñ Abdou daal bisam na teraanga ja doy na xasida ja doy na alxuraan ja doy ku ko def ku ne da nga daje ak bëggam ndax lim fi nekk ak ba jóge fi lépp alxuraan xasida ak sëñ Tuubaa rek ak bëggam ak dimbal nit lii nag ndimbal la loo xam ne ku ci def ku ne wala nga wax ci wala nga jëf loo ko jagal sa mbir àdduna dana jag sa mbir àdduna sa mbir àllaax dana jag loolu mën naa ko wàcc ci barke Sëriñ Abdou Lahad kon nag ñu ngi ñaan eh, fu dib taalibe nekk nga ñaanal Sëriñ Sidi ñaanal njaboot gi yëpp ñu dëppoo am seen ngërëmul waajur saa defal leen gudd fan defal leen wér defal ko taalibe Sëriñ Tuubaa yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu jërëjëf mbokki jullit yi jërëjëf itam mbokki taalibe yi ñoo jot a déggandoo ndigal li bàyyi ko ci Sëriñ Sidi moom Cheikh Abdou Lahad Mbacké di jëwriñu kër Cheikh Abdou Lahad jaar ci rakkam yi ñu déggandoo kàddu yooyu di bis bi nga xam ne moom la ñuy waajal ñeenti fan ci weeru juin dëppoo ak ñaar fukki fan ak ñett ci weeru korite di bis bi Cheikh Abdoul Ahad Mbacke jàmbaar islam ja jamono ci njaareem Serigne Touba waxoon ca waxam ju rëy ja ne nag gan gi am naa ci yaakaar waaye ku ma ko teralal ku ne dootoo tàngook teraanga yi àdduna ak jooj alaxira Serigne am satul lim na teraanga yi alquran moo ci jiite fu daaray alquran mën a ne Serigne baa ngi lay soññ ci njàngum alquran mi ñu daal di koy tàmbali na mu gën a gaawe te lu kaamil yi a bari rek gënal sa sëriñ bi ñu def ko addiyee Cheikh Abdoul Ahad ak mboolem bokkam yam nekkal fam nekk waaye ñu dool dolli njàngum xasida mi foo xam ne kuréelub xasida nee na fa sëriñ bi ne na nañ tàmbalee jàng xasida yi te di ko def addiyee Cheikh Abdoul Ahad ak bokkam yam fa nekk waaye bernde nag su ñëwee loo am da nga ko cay yemale ndax sëñ Abdoul Ahad sëñ moo waxoon ne ku ma ci lebal teraanga danaa la ko fay borom dana la ko fay kon bis baa ngi noonu foo ab daayira mën a ne di daayirab Cheikh Abdoul Ahad wala daayirab soppe wala daayirab sëriñ Touba te bëgg a barkeelu ci bisu Cheikh Abdoul Ahad bi sëriñ Sidi tëjut ay waaye kuy ñëw bu mu ëpp ñaari nit kenn ku ci nekk boo ñëwee da ngeen la toppatoo ba nga àgg ci sëriñ bi nga jébal ko sab liggéey njàngum alxuraan mi njàngum xasida mi mi bernde yi yaatalaat gan ñi sëriñ baa ngi koy ñëpp nag bis bi ñeenti fan lay doon ci weeru juin di amee fii ci Touba waaye dëppoo ak ñaar fukki fan ak ñett ci weeru kor wi ñoo ngi ñaan képp koo xam ne yëngu nga ci bis boobu wala muy wax ba muy jëf wala lu mu mën a doon yàlla nga ci dajeeg waqadi hawaaiji lazina daamu fii xidmati wa hablahum maaraamu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bidee bi maase na booloo xam ne yaa ci fi woon nuy sabtara boolaate ñaan di déglu ndigal sunu xol yi sedd na sunu xel dal te yaa ko waral